amis très chers internautes particulièrement yéen ñi nekk duñu suivre fii ci Feeling Dakar la première chaîne politique et people du Sénégal euh, man nag dama am mbégte ndax gis ngeen jigéen laa dalal moo tax ma kontaan euh, may dalal jigéen ju man góor jigéen joo xamante ni euh, kenn du ko ràcce fi nga xamante ni moo di Maroc ndax jàmmaaram ci liggéeyam waaye taxawaay bi nga xamante ni am na ko ci politique mu nekk une jeune femme nekk leader politique bokku ci parti bi nga xamante ni moo di PASTEF bokk ci commission féminine bi waaye lépp lu jëm ci eh, élection muy présidentielle comme élection législative yi moom moo jiite commission bi fi nga xamante ni moo di Maroc moo doon lijjanti bulletin yi moo doon nekk di xool bureau de vote moo doon coordonné aussi campagne bi durant toute campagne électorale bi moom la ñu génn moom moo nekk woon ci kaw ba nga xamante ni mu fës yi liggéeyam fës nag ci àdduna bi yëpp tey Fatou Bintou Badiane laa toogal Fatou Bintou nuyu naa la am mbégte dalal la ci Feeling Dakar. ah soxna maa ngi lay fay. <laughs> noo def mbaa yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm dafa ne yaa ma dalal sa dëkk de. <laughs> waaw maa la <laughs> waaw jaloore yi ñuy dégg nga koy def kon Fatou nekk nii daal. waaw effectivement balaa mooy commencer je me maa ngi tudd Fatou Bintou Bodian bokk ci commission féminine Pastef Maroc. mais aussi euh, nekkoon directrice su campagne fii ci diwaanu Maroc mais également Afrique du Nord. Mhm. Euh, d'abord nga nekk jigéen ñu ñu jox la euh, charge bu ni mel nga jiite Afrique du Nord ak li nga xamante ni moo di Maroc buñ ci ñëwaat ndax metti na wala méttiwul. noo ko dundee. non je je pourrais pas dire ni kii métti na ndax euh, képp ku xam Pastef xam ni kii Pastef lépp lu muy liggéey travail de groupe la ñuy liggéey loolu dafa may permettre ma mën a féliciter sama équipe équipe bu nekkoon sama ginnaaw ndax nekkoon na équipe bu dynamique certes man man maa nekkoon ci kaw mais bu demee ba liggéey bi fës fës bu mu fës nga xam ni équipe bu fi nekkoon. maanaam équipe bu ma doon accompagner ñoom ñoom ñoo nekk ci ginnaaw loolu noonu. Mhm. ci équipe boobu noonu aussi mën naa ci citer la professeur Jacques ndax moom moo nekkoon responsable Senop. Mhm. nekkoon coordination coordinateur au niveau de la Afrique du Nord mhm. concernant les élections. donc lépp lu wàlloon lu ñëwaloon élection rek moom moom moo ci nekkoon. et donc di ci def liggéey bu remarquable. ñu am ci Lalla Zeynab bi nga xamante ne moom aussi moom moo nekkoon responsable organisation nekk Sénégal am solo am ci maman Diédhiou aussi donc euh, moom tam defoon na ci liggéey bu am solo concernant coordination bi rassemblement nit ñi donc ñu am commission des sages benn sage bi nga xam te maman Mati doon dañu accompagner sur les décisions à prendre tout le temps ñoom laa doon consulter donc euh, en tout cas équipe la daal équipe non woon benn yoon uh-huh. euh, ah. mais Fatou pourquoi nga choisir Pastef lu tax nga nga choisir ni yow da ngay militer Pastef loolu question bu may neex la ndax euh, tey jii ku ma laaj lu tax ngay choisir Pastef day mel ni ku may laaj lu tax nga choisir dëgg ndax ku xam Pastef mooy xam ni ki dafa nekk parti bi nga xamante ni c'est composé plus pratique particulièrement de jeunes yu nga xamante ne changement moo leen intéressé donc ñun tey jii en tant que jeune bëgg changement changement suñu dëkk loolu moom moo waral gën a milité wu ci biir Pastef ndax bépp ndax maanaam lu ñu am fii ci dëkk bii nii dañu bëgg am suñu dëkk bokk na ci lu gën a tax ñu ñuy gën a milité ci biir Pastef uh-huh. uh, looloo tax ñu gën a milité Pastef ñu gis ni uh, présidentielle yi ñu gën Pastef uh, moo jël raw gàddu bi fii ci Maroc même ci législative yi um, nga jiite ñaar yooyu yëpp yow tey lan nan ngay jàngatee li nga xamante ni mooy résultat yi ngeen am au niveau de l'Afrique du Nord particulièrement fii ci maro en fait loolu mën naa ne c'était juste benn confirmation benn confirmation concernant résultat yu ñu am ndax xam nañu passé ba mu fi nekkee Maroc depuis 2017 ñoo yàgg gagné fii passé ba mu implanté woo ci biir Maroc ba tey passé moo yàgg gagné Afrique du kii moo yàgg gagné Maroc bi te comme ni ma ko waxee rek juste confirmation la ñu soxla woon ndax élection présidentielle yi aussi c'était tellement facile mën naa ne 10 jours de campagne la ñu amoon et dans les 10 jours jot nañoo gagné 84 pour cent je donc ñëwaat fii nii gagné waat pratiquement à 84 pour cent donc c' est juste des te aussi équipe bu nekk ci ginnaaw tamit mën naa ne mu ngi def liggéey bu am solo aussi. ngeen am député mu dëkk Maroc loolu tamit lan la leen def yéen ñi nga xamante ni yéen ay sénégalais de la diaspora particulièrement yéen ñi nekk fii ci Maroc. loolu c' est une grande fierté te di nga may tamit ma remercier. suñu président parti mooy le président Ousmane Sonko muy premier ministre du Sénégal donc euh, benn honneur la ñu ba mu génnee député bi fii nii d'autant plus que dafa nekk député bi nga xamante ne c'est pas n'importe qui mhm. nekk na nit ki nga xamante ne tey Pastef Maroc moom moo ko sànc Afrique du Nord Pastef yu bëre bokk na si les membres fondateurs muy Tunisie Mauritanie donc yooyu yëpp bokk na ci les membres fondateurs ba wetu Gabon bi sax bokk na ci les membres fondateurs Pastef yooyu noonu te nekk nit ki nga xamante ne peut maanaam lu gën a extraordinaire si moom mooy dafa nekk di ki nga xamante ne il jouit d'un handicap mais handicap boobu noonu boo ko gisul doo ko xam ndax il peut tout faire juste dans c'est juste dans l'esprit quoi ndax ñun ñu nekk ci moom ñun ñu nekk di dund ak moom donc mun naa ne c'est une très grande fierté ñu député bi génnee si ñun daal député bi génn ci yéen muy fierté ci yéen waaye bu ñu ñëwee ci li nga xamante ni moo di actualité Euh, tey yow ban jàngat ngay am global ci li nga xamante ni moo di élection législative yi malgré ni gis nga campagne bi bëri woon na ay coow euh, ci yenn endroit yi amoon na ay violence mais yàlla suñu borom def na ni Pastef moo jël raw gàddu gi plus de 130 députés ñu am yow tey ban jàngat ngay defal ci li nga xamante ni mooy élection yi ñu génn. d'accord euh, première jàngat bi mooy mën nañ ne. tey jii élection présidentielle yi gars yi dañu ko jox à quatre à cinquante quatre pour cent. Mhm. donc bu ñu gisee cinquante quatre pour cent. te xam maanaam Pastef lu mu programme bu mu teg tey jii pour Sénégal soxla na majorité d'autant plus que opposition bi wane woon na fi. le fait que bu ñoom bu ñu yoree majorité nan la ñuy nan la ñuy gérer dëkk bi. Mhm. donc sénégalais yëpp xam nañ ni ki tànk Pastef yorul majorité du mën a doxal programme mhm. donc loolu bokk na ci lu nga xamante ne. tax na sénégalais yi jox ko majorité bi mais écrasante li nga xamante ne mësta am ci histoire sénégalais mais aussi deuxième kii bi mooy day wane ni ki classe politique sénégalais bu fi nekkoon depuis 1960 nekk fii nii lu dul seen poste di développer seen poste bañ a nekk fi intérêt sénégalais yi sénégalais yi dem nañ ba doyal ci ñoom donc loolu tam wane na benn yaana ci classe politique moo tax ñu éradiquer leen complètement ci surface bi ci législation yi. yóbbu ngeen leen à la retraite daal. gratuite. <laughs> nee na ay ah, yaa ko wax ne sama ay kàddu euh, mais xam naa ci yooyu itam dañuy ñëw tuuti rek ci taxawaayu jigéen ak ndaw yi nga xamante ni léegi gis nañ ni il s'intéresse beaucoup plus davantage ci li nga xamante ni moo di politique bi loolu itam ban jàngat nga ci def surtout jigéen ñi te ñu dañ doon xaarandi sax une femme tête de liste yi ni génn te amuñu ko métti na ma daal man. non pourtant am na de. ndax Gabon tête de bi. Uh-huh. jigéen la woon. Mm. Pastef bu euh, Pastef waaw bu Pastef. Ba moo gagné. non non. ah non <laughs> mais euh, tête de bi jigéen la woon et ça une fierté. Uh-huh. mais maanaam lii laay waxati Pastef maanaam pouvoir bu muy jox jigéen ñi ñu mën a xam ni ki c'est pas seulement jigéen. place du seulement nekk kër ga uh-huh. mais aussi dëkk bu naree développé wu jigéen bu ci deful loxoom du baax et loolu on l'a compris même si on peut pas dire très tard mais on l'a compris quand même donc loolu noonu permettre na léegi maanaam jigéen ñi am na ñu benn implication ci politique sénégalaise bu nga xamante ne moo nekk di permettre ñu mën a am avancement bu nekk di avancer nii mhm. euh, di nekk di avancer Euh, tey jii euh, lan ngay wax euh, sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk di la suivre à travers Feeling Dakar nee naa la moom mooy première chaîne politique ak people lu Sénégal moom nga xamante ni lépp lu baax rek ñun ñoo koy fësal gis nga moo tax xam nga ne ñu ñëw toog ak yow di waxtaan nii lan ngay wax nag sénégalais yi nga xamante ni ñoo lay suivre à travers Feeling Dakar. tout d'abord maa ngi leen di ne merci si déplacement bi ndax yombut. mais aussi sénégalais yu ñuy suivre surtout man bu may maanaam bu may appuyer wu. ou bien si je serais bien placé pour conseiller ay sénégalais mooy sénégalais yi nekk si diaspora bi. Uh-huh. surtout ñu nekk fii nii ci biir Maroc. Mm-hmm. mooy dëkk ñaari yëf nga fay am. Mm-hmm. boo xasee ba génn sa dëkk dem ci beneen dëkk soit di ci amee koom-koom soit di nga ci amee xam-xam mais peu importe li nga ciy amee retour maanaam retour à la source tamit am na donc mën ngaa ñëw pour am benn koom-koom amoo ko. bu ñu am rus rusukaay bi nga xamante ne war nañu delluwaat suñu dëkk nar a ressourcé ndax xam nañ ni ki bu ñu voyagé aussi am na même bu ñu gañewul ci koom-koom dinañu gañe ci expérience e loolu mën nañu permettre ñi am benn entrepreneuriat suñu dëkk mën a am benn développement suñu dëkk mm-hmm. mais aussi ñu nekk Sénégal ñu jëm ñoo bàyyi xel jéem a xam ni ki ñun ñu nekk si diaspora bi du question ni ki da ngay voyager rek mooy yaa ngi yor ay millions. wala tekki nga. wala wala tekki nga effectivement. Mhm. donc ñun am nañu problème boobu noonu. Mhm. des fois da ngay bëgg a ñibbi mais dangay ngay am gàcce pour ñibbi. Mhm. wala tu vas travailler pendant des années uniquement pour jënd charité bi ngay ñibbi wala boo ko jëndul tamit boo demee. des fois dañuy bët xool ak ñi la minimiser di wax. effectivement te alors que am na tey ji ay sénégalais yu nekk fii ci Maroc di fanaan ci trottoir yi ñenn ñi ñu ngi ci kaso yi euh, comme ni nga ko junjee rek sànq nekkul ni ku génn Sénégal rek euh, dem ci diaspora bi rek da am amul euh, nekkul ni itam da ngay génn rek nekk ci lu baax déedéet euh, de ce fait est-ce que kon yow nekkul ni da ngay wax famille ya ca Sénégal ñu gën a indulgent gën a am yërmande itam ci ñi nga xamante ni moo di yéen sénégalais de la effectivement loolu laa leen bëgg wax maanaam gën ñoo jàppale gën ñoo soutenir des fois gars yi sa téléphone day sonné lépp lu gars di la laajte mooy xaalis ordonnance bi ordonnance lañ lay kenn du la laaj ndax yaa ngi si jàmm kenn du la laaj ndax lekk nga kenn la mhm. laaj ndax am nga fi ngay tëddee mhm. kenn du la laaj ndax yaa ngi progressé ci li nga nekk mais tout le temps ñoom seen i ay problème lañ lay tegal te ñun ñoo ëpp problème ku am te ndeysaan des nit sax laaj leen ngeen jox ko des fois mu laaj leen jox leen ko mu mere leen des fois nga xaaj sax ñu ni xool ko rek mi ngi wàññi loxoom te xamuñu euh, actuellement li ngeen di dund nit nag boo xamul li muy dund muy suturloo boo ko mun mënta jàppale bakkaay ki mbagam mu dem ak boppam euh, waaye dañu am tamit beneen sama beneen xarit moom tam mu nekk Pastef nekk fii xam naa dama koy jël ñu waxtaan tuuti rek laataa ñuy tëj li nga xamante ni moo di jotaay bi waaye pare nag en naa maanaam remercier benn élément aussi ah, ah. wala ñaari élément ah, mooy suñu EG Dieng Thiaw mm-hmm. jàppale na ma ci bu baax ci élection yi mm-hmm. mais aussi le professeur Zak ak waa Senop mm-hmm. ñoom moom sincèrement dinaa appuyer wu suñu remercier leen mais surtout moom aussi donc naa la appuyer wu gën di leen ne vraiment boo leen ci jàppaloon du baax waaw maa ngi remercier vraiment suñu suppléante bi aussi mu nekk benn jàmbaar nekk ci bëtt ba Mauritanie doon liggéey liggéey bu am solo bañ na sax yëre bu ma sol nii sax moo ma ko jox donc euh, maa ngi lay remercier madame Ndour Oumy Goudiaby ak euh, waa Mauritanie yëpp ndax ñoom tam def nañu liggéey extraordinaire ci diwaanu Mauritanie donc maa ngi leen di remercier bu baax a baax. ginnaaw Fatou Bintou ñu sekk ak moom waxtaan bu am solo ngeen dégg ko mu nekk ndaw euh, def liggéey bu am solo ci élection présidentielle ak législative euh, ci parti bi nga xamante ni moo di euh, Pastef les Patriotes ma toggaat beneen kilifa boo xamante ni ci parti Pastef les Patriotes la bokk Maman Diédhiou Maman Diédhiou yore commission bi nga xamante ni moo di commission féminine nekk fii ci Maroc Maman naa la. fay naa la. ah kontaan bu baax ci toog ak yow. merci. ah kon ñu wax shukran. shukran <laughs> marhaban bi xam. <laughs> Euh, maman ñu gis ni yow yaa jiite commission féminine euh, mhm. Pastef les patriotes fii ci Maroc d'abord ndax jiite ay jigéen yomb na. waaw maa ngi leen di sant d'abord. Mhm. di leen di gërëm man la maman Diédhiou responsable euh, des femmes Pastef du Maroc. Ah, li may wax mooy nekk. métti na méttiwul mhm. parce que en tant que responsable des femmes fii mhm. ñun non nu ñu nekkee fii ñun xamante nañu d'abord miinante nañu foofu laay wax ne que méttiwul mhm. su doon ñu ngay jiite xamoo leen wala miinantew leen peut-être dina xaw a métti te yàgg nañu depuis 2018 mun naa wax ne ñu ngi ci Pastef Maroc di ko dooleel ba tey donc du waxtaan bi euh, du xaw a metti ci seen côté parce que am nañu suñuy groupe yoo xamante ne bu ñu bëggee waxtaan waxtaan te bu ma leen woowee wax dëgg fa yàlla seen tànk day oyof pour ñu wuyu si ma mhm. loolu tamit nekkul lu jafe. donc moo tax ma ne la euh, mais euh, tey jii nii génn ci ay élections présidentielles génn ci ay élections législatives ba tey suñu borom bi leen defal ndam euh, yéen tam jigéen ñi ngeen am taxawaay bu am solo ci li nga xamante ni moo di organisation bi ba sax ki jiite woon lépp lu jëm ci élection yi muy jigéen yow tey lan lay def nga gis ne jigéen ñi ñu ngi jiitu di di di wane seen ay preuve ci lu baax ci li nga xamante ni moo di ci politique bi surtout. di jiite ay góor. pour wan la nekk li góor man léegi jigéen mën na ko mhm. parce que tey boo gisee surtout projet bi dañ cee yee ñu bari mhm. ndaw xale mag ñëpp a ko gëm te ñëpp a xam lan mooy projet bi parce que mën naa wax ne que Ousmane Sonko d'une dimbali na nit ñi pour ñu comprendre lan mooy politique ne que politique du question da ngay ñëw nga joxe xaalis séddale rek ndax nit ñi wax déedéet dafa ñëw xippi suñuy bët xamal ñu lan mooy politique moo tax fu mu toll nii jigéen ñi ñëpp a yeewu ci loolu ba pare bëgg tamit defar suñu réew parce que fii ñu nekk nii tey bu ñu sañoon ku nekk dangay dellu si dëkk metti na mettiwul ku génn moom toujours day xaw a metti ci yow looloo tax tey lii ñu daal di koy yombal loolu naa wax ne que jigéen ñi dañoo engagé fu mu toll nii. engagé tax ngeen ba dëgër gis nga suñu directrice de campagne xale bu ndaw macha allah. Uh-huh. wax dëgg yàlla metti na mettiwul mais mu gëm ko. Uh-huh. assumé dem ci ba tey ñu am si ndam di kontaan bu baax a baax si moom. wax dëgg uh-huh. yàlla tamit mu nekk suñu directrice mu nekk suñu directrice de campagne mais mais tey xam nga ni yan bi dis na li ñuy xaar surtout ci Pastef parce que eh, yaakaar tax ngeen am 54 pour cent ci élection euh, présidentielle yi législative sénégalais yi jox leen 130 députés euh, tey lan ngay wax sénégalais yi nga xamante ni ñoo leen doyloo ba saa yu ngeen laajee ñu jox leen euh, depuis ngeen nekk ci nguur gi. waaw li ñu leen di wax mooy ne que nañu gëm parce que lii ñun ñoo ko bokk du loo xamante ne benn nit moo ko moom ñun ñëpp ñoo ci yem bokk. pour suñu réew mën a baax du coup moo tax it fu mu toll nii mooy li ma lay waxaat rek instant ñëpp xam nañu lan mooy politique si beneen manière nekkul si bi nga xamante ne système bu yàgg bi comprendre moo tax it fu mu toll nii di wax di ñaaxaat nit ñi ne leen nañu gën a doole nañu gën a gëm gën a liggéey xam ne que ñun ñoo war a liggéey pour ñu mën a avancer si li ñu nekk du ñu xaar pour ma sàmba wala ma demba ñëw nañu par benn benn defal yi defal yi parce que comme ni ñu ko waxee nit ñi léegi dañoo yeewu moo tax fu mu nii ne jigéen ñi gën a doole seen bopp xam ne que la góor mën jigéen mën na ko. Mm. parce boo xoolee ci député yi rek nga xool fu jigéen nekk benn góor a ngi fa benn. donc di ko on est au d'égalité. ou plus. même sax. voilà te dañoo bëgg fu mu toll woon góor ak góor ñi. léegi nag ñun tamit ñun ñooy jiitu. ñooñu topp seen ginnaaw. Euh, ci jiitu topp ginnaaw. ñu mm-hmm. gis ni euh, sénégalais yu bëree bëri ñu ngi ci diaspora bi. Eh, bàyyi seen ay famille di daan seen i doole. Eh, ah. par exemple yéen rek yéen a ngi fii nii di liggéey hormis li nga xamante ni moo di politique bi ngeen di yëngu eh, tey lan ngay wax les sénégalais de la diaspora particulièrement ña nekk ca réew ma di leen xaar ak ñoom ñu nekk fii euh, si Maroc di fi liggéey. waaw li ñuy wax ñu nekk fii d'abord laay mën a wax. Mhm. parce que mooy li ma wax rek ku tukki dafay metti ci yow fii boo fi ñëwee dëkk jàmbur nga nekk euh, premier temps. moo tax boo jógee sa dëkk nga ñëw nga ne da ñëw ut ci dèjà xamal li la fi indi soo xamee li la fi indi rek di nga xam li ngay def metti na nag parce que nga nekk dëkk si jàmbur am na loo xamante ne dañ leen koy privatiser am na loo xamante ne da koy bëgg am du yomb ci yow loolu yëpp ñu ngi koy jànkonte lépp lu ñu bëgg fu mu toll nii mooy nguur bu bees bii ñun mën naa ko wax parce que tamit euh, mën naa ne bokk nañ ci ñun ñëpp ñoo ci bokk yem comme ni ma koy waxee. ñu jéem ñoo jàppale. ñu xool nan la ñuy yombalalee suñu nekkin bi fii. Mhm. parce que metti na trop. Mhm. nekkin bi xaw naa compliqué surtout ay jigéen nga bàyyi sa dëkk nga ñëw fii nga ne da ngay ñëw ut dafa xaw a metti mhm. donc du bu ñu facilité si yenn kayit yi. si yenn. Euh, comme carte de séjour yi de séjour yi mën naa mhm. ko wax xam nga. Mhm. des na da ngay gis koo xamante ne da ngay liggéey contrat de travail sax mënoo koo am dafa metti mhm. nga yàgg te nga am say droit mu leer na lii war na nañ ñu ko mën a defaral mais amoo ñu nekk sa ginnaaw pour ñu mën la dooleel pour boo waxee ñoom tamit ñu mën ñoo respecté. waa dëkk bi ñu appuyé loolu mu ngi fi ñu koy daj. ñun man bokk naa ci loo xamante ne dama doon def ay déplacement di dem di régler yenn problème yoo xamante ne ñu ngi koy jonkante fi ci ay association mhm. daanañ ko def ñuy gis loo xamante ne lu metti lii dal fi jigéen ñi des fois surtout nag damay gën a ñaaxaat ci côté ñi nga xam ne dañuy ñëw naan dañuy ñëw contrat côté boobu nag dafa xaw a mhm. sensible tamit côté boobu surtout nañ ci jigéen ñi bàyyi xel ku mën a ñëw ñëwal sa bopp mais buñ la ne ñëwal contrat parce que cas yooyu gis nañ ko fi lu bari côté duma ci mën a développer xuus de trop Euh, c'est pas carrément le but mais dama ci ñaax nit ñi tuuti ñu bàyyi ci xel. nga éveillé leen daal ñu moytu voilà contrat kuy ñëw bu ñëw si contrat. waaw ñëwal mu leer na la am nga ay mbokk fii ñu lay mën a héberger. Mhm. bu boobaa lu mu mën a métti métti dinañ la jàppale ci yenn situation mais contrat moom man xelal ma ko sama benn moromu jigéen nga ñëw nga ne yaa ngi fi ñëw. contrat. loolu moom waaw mais mais xam nga peut-être ñenn ñi dina dégg contrat duñu comprendre mais est-ce que mën nga leen leeralal rek euh, lan nga bëgg wax foofu. exactement waaw li ma bëgg wax foofu ci contrat bi mooy maanaam da ngay gis ñoo xamante ne dañ leen ne contrat lañ lay indi jiku kooku sax légalul ci dëkk bi ki lay indi naan day ñëw pour indi la contrat. day ñëw gis benn naar bu soxla nit mu ne mën naa la indil sama nit xam nga. amaana dañuy dem sax des fois signer ay papiers yoo xamante ne ñoom da leer légalu man mun naa la jox exemple man man dund naa ko ak kenn koo xamante ne maa ko génnee ci contrat boobu. Mhm. comprendre nga. Mhm. kooku naar bi ba ma demee wax ak moom nee na ma waa ji moo ko jaay ndaw si. da ko koo jaay. kon xam nga ne loolu du lu légal. Mhm. fan la ñuy jaayee nit. nit mën lañ ko jaay. <laughs> déedéet loolu légalu. voilà ma xeex ci loolu ba génnee ko. fu mu nekkoon. ma dem ma woo jigéen la jigéen la. parce que xamul. te dañ lay tëj la plupart boo ñëwee ci contrat. am na peut-être ngay daje ñu baax am na ñoo xamante ne ñi ngay daje ñoom benn esclave lañ lay teg da ngay ñëw ñu tëj la. doo génn doo dem fenn tant que sa contrat jeexut yow amoo pour génn. doo xam dara lu xew da ngay bëgg dem ut sax sa carte consulaire day jafe ci yow. te normalement boo dugg see si dëkk bi la première chose li nga war a def mooy dem uti carte consulaire ñu xam ne seen doomu réew mu ngi fii ci dëkk bi. mais tëj ñu lay tëj yow da nga fay liggéey. Ah. waaw da nga nekk di fa liggéey. waaw mais mais quand même du du ñu egg ci peut-être jigéen ñi dina leen jox boppam wala yu ni am na ñu koy. Ah, ñoo xamante ni si seen biir liggéeykaay bi am na nu mu fay demee seen biir euh, patron wala seen doomu patron day am mm-hmm. léegi yow di ko mun nga bañ ci ngay gis yenn problème yi am mun ngeen fa gaañante mm-hmm. parce que yow tamit bu dee sa dignité moo la indi nga bëgg dara doon nangu tamit yenn ñu di la ko def mm-hmm. des fois nga fippu nga bëgg a rëcc pour dem loolu yëpp am na fi di nga gis ko boo koo xamante ne bu dee mbokkam moo fi nekk day jéem a woo mbokkam pour woote wàllu loolu yëpp ñu ngi koy daj fii ci dëkk bi moo tax ma wax ne que bu ma sañoon képp kuy ñëw bul ñëw si contrat mais ñëwalal sa ñëw bopp nga fekk nga am fi ay mbokk yoo xamante ne dinañ la mën a héberger ba yow nga miin dëkk bi comme ñëpp mais contrat je conseille à personne <laughs> euh, ñoo koy déggandoo parce que moom mi ko wax gis ngeen mi ngi joxe ay exemple ci cas contrat yi xam nga souvent aussi dañuy gis sur les réseaux sociaux wala ci yenn yi ñu naan la ay contrat wala naan la jaaral ci lien bi et cetera euh, tukki d'accord nañ ñun ñëpp ni baax na parce que boo ci amul expérience di nga ci am xam-xam wala ab koppar mhm. waaye itam na jaar ci yoon bu légal bi na nga dem ak yow say yëfu bopp bul nangu ñu lay diri di la yóbbaale ndax dëkk jàmbur ay luwaayu boppam la yoon te dafa sévère maman ci yile kàddu la bàyyi rek nga tàggatoo bu dul tàggatoo ak waa Feeling Dakar yi la seet si voilà maa ngi yéen waa Feeling Dakar bu <laughs> di leen tàggatoo di leen di jërëjëf ma ñëwaat tamit di gën a ñaaxaat ne que nañu moytu tamit dëkk bi ñu nekk ku nekk boo ñëwee fi xamal li la fi indi te nga xam li war boo ko defee tamit di nga nekk si jàmm waaw mhm. di gërëm euh, waa Feeling Dakar encore di gërëmaale nag du ma dem te du gërëm nag suñu député bu bees bi Alamine ko gërëm ko nag bu baax a ngoom di sant di ko gërëm bu baax kon seen xel dal na ci dem nga mu nar a dem assemblée. bu baax sax mhm. franchement ndax yéen a ko tabb waaw wax dëgg fa yàlla nit ku oyof la du ma mhm. taay tamit di ko wax mhm. nit kese la ni koy gis nii day déglu ñëpp dëgg fa yàlla te am nañ ci moom yaakaar ne su demee assemblée ñu waxal suñu naqar fii dina ñu waxal la xamante ni tamit dinañu jëmal kanam fii ci dëkk bi di ñëwaat tamit di gërëmaat encore suñu professeur Jacques Uh-huh. professeur Jacques du ma wax te du ko tamit gërëm. Uh-huh. comprendre nga moom moo yore chargé des élections depuis 2018 ba léegi. Uh-huh. mu ko yore ci anam bu rafet bu jaar yoon la ko yore. képp koo xamante ne dugal na ko si électorat yi si groupe bi. toujours liggéey bu mucc ayib la ñuy def mhm. franchement depuis 2018 ba léegi mhm. rëccuñu wax dëgg yàlla lu mu fi nekkee mhm. di gërëmaale di nuyu waale sama maman Mati maa ngi koy nuyu <laughs> ah di nuyu laa Lion Sall depuis Sénégal su ma limee damay juum di nuyu waa Pastef ñëpp wax dëgg yàlla ñëpp jàpp nañ ci franchement di nuyu waa commission des femmes di nuyu waa organisation bi ñëpp jigéen ñi ñëpp bàyyiwuma kenn maa ngi leen di nuyu ñoom dabaax jàpp nañ franchement ci liggéey bi ñoom jiyéen ñoom grand Salif suñu vice coordinateur yi ñëpp suñu maman yi ñoom seena bu wax dëgg yàlla su liggéey limee damay juum mais Pastef ay jàmbaar lañ ko ci man <laughs> toujours wax dëgg yàlla ca kaw ca kaw ñu ngi prouvé ñu ngi prouvé franchement ñu moo wax dëgg fa ah. yàlla duma tàyyi di ko wax te ñun ah. tamit ñu góor góorgóorlu ah. di ñaan yàlla tamit à chaque fois ñuy gis résultat mm-hmm. ba bu ñu am dara lu ñuy xeebee ci suñu liggéey bi tamit mm-hmm. waaw loolu tamit ñu ngi koy ñaan baax di gërëm ñëpp di leen sant merci beaucoup la femme est la racine première fondamentale stupide Mariama Ba dans une si longue lettre man tey dama kontaan ndax ay jigéen laa nekk doon ci yile kàddu rek lay tëjee na leen la vie est une pièce de théâtre où chacun joue son rôle et disparaît Feeling Dakar la première chaîne people et politique du Sénégal del déglu del xool Feeling Dakar yaa Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre